waaw asalaamaaleykum yéen ñi ci Rmo Sport ñu ngi leen nuyu di ziar tey nañu war ñëw ngeen tamit analyse bu solo ak information yoo xam ne am na ci max yi xew tey muy diggante Corée ak euh, Brésil ak diggante Japon ak Croatie waaw max yi am solo la woon nag laata laataa loolu dañu ngeen abonné ba ko notification bi pour ngeen mën suñu vidéo au di Croatie moo Japon tiro bi max 1 la ci 90 minutes kii di Brésil moo dóor 4 1 ki nga xamante bii na mooy Corée ñu nekkoon max yu am solo loolu nag Brésil wan na boppam bu baax Neymar moo dugal benn penalty bu am solo mais nag ba léegi forme des ma ñu gis na nag kii di kore équipe boo xamante bi Brésil dóor ko mais wane na boppam fubal na fubal bu yu incroyable boo ne ku nekk ñun rek xam na ne équipe la bu bu bu am fuula ci li muy def bu bëgg li muy def ñu gis ne ñoom ñaar ñëpp Japon bi football ak Corée wane loo xamante ne bii na euh, Japon bi football ak euh, Corée euh, Croatie wane loo xamante ne bii na macha allah macha allah macha allah mais nag loolu mooy sport il kenn gagnant kenn ñàkk kon tey daal Brésil moo dem wi quart de ak ki nga xam ne mooy Croatie ñoo daje quart de finale mu nekk maxi yu am solo am solo yoo xam ne ñi ngi xaar ñaar équipe yi mais nag Brésil équipe boo xam ne bari na joueur comme saaru club rek joueur yu ay grand la yoo xamante bi na macha allah macha allah euh, ku nekk ci ñoom rek ay Vinicius Junior ah, ay Rafinha ay Neymar ah, ay Casemiro ku nekk ci ñoom rek ay joueur lañ yoo xam ne euh, macha allah hydro classe mondial lañ Brésil moom macha allah léegi nag gaa yi ñu ne ko bu leen fàtte abonné tamit ngeen bës ko bi. ngeen commentaire partager liker ba vem euh, dina merci ba benn yoon fii fi suñu seen Remo Sport ñu dañ ci di jox yi ak suñu analyse ci chaque match